démarrage effective des travaux defe naa moom mooy nekk li nga xamante ni si moom moo ciy topp parce que comme pose def nañ pose première pierre bi am nañ entreprise boo xamante ni muy Afribat déggoo nañ ak moom ci modalité de de travaux yi kon donc defe li ci des mooy ñu ko dem ci liggéey bi directement. waaw durée bi nga xamante ni moom lañ ko appel ak liggéey ak suñu conseiller technique yeeg ak entrepreneur beeg ingénieur bi yëpp dañuy wax une durée de 10 mois. maximum. waaw parce que waa Royet dañu nekk benn regroupement boo xamante ni dafa lëkkale commerçant yi nga xamante ni si ñoo nekk ci Touba et environ comme ñun tamit dañu nekk Touba dëkk Touba dëkk ak sëriñ Touba lii rek nekkul suñu objectif ndaxte bu lii eggee incha allah dañuy envisager maanaam nekkaat ci yeneen liggéey yoo xamante ni maanaam dañ ciy jot ndigal ci sëñ bi incha allah. commercant yi de dañoo yéex a sóobu ci liggéey bi man du ma jàpp loolu c'était organisation la ak méthode. parce que tamit lu toy ni ñaari amphi yoo xamante ni 800 millions moo koy defar mënoo tëb tëb benn jour rek du jour au lendemain rek nga taxaw ci c'était longue processus boo xamante ne ñi ci doon dox di ci wax xam nga li ñu doon dox dans le jàpp ni peut-être commerçant yi dañoo yéex a jóg wala genre comme ça mais depuis des mois ñi ngi ci noppaluwuñ guddi noppaluwuñ bëccëg ànd ak le président Moussa Mbaye ak membre comité pilotage bi fu si nekk dem nañ ci ay réunion dem nañ ci waxtaan ceeg entreprise yi yi war a waxtaanal ba dem ba tànn entreprise bi nga xamante ne moom lañ bëgg a liggéeyal kon loolu dafa nekk procédure boo xamante ni dafa gudd kon loolu moo waral peut ñi nga xamante ni dañoo nekk ci biti te comprendre li nekk à l'intérieur ñu jàpp ne dañuy yeex mais yeexuñu woon ci liggéey bi lañ nekkoon ndax loolu lépp ci processus la bokkoon